Serigne Modou Diagne Serigne Modou Diagne mi ngi feeñ jamono ci atum 1914 ci dëkk bu ñuy wax Njaañ Njaga nag mi ngi ci région de Louga ci dëkk boobu nag la Serigne Modou jaañ feeña jamono di doomu Serigne moor Kumba Banda jaañ ak soxna Issa Diop moom nag am na ñu mbokkal soxna Issa Diop ak kii di Serigne Mor Kumba Banda Diagne muy ku ñuy wax Serigne Cheikh Diagne ibnu soxna Issa Diop ibnu Serigne moor Kumba Banda Diagne ak ku ñuy wax soxna bu sa Diagne bintu soxna Issa Diop bintu Serigne Mor Kumba Banda Diagne ak ku ñuy wax soxna astu Diagne bintu soxna Issa Diop bintu sëriñ moor kumba bànna jaañ ak moom sëriñ moodu jaañ ibnu soxna isa jóopa ibnu sëriñ moor kumba bànna jaañ ñett nag la bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñeent njaboot goog mu bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen ñu wax leen ñoom ñooy ñan sëriñ cheikh jaañ nekkoon na noddukat nag ci jàkkay daaru xuddoos ji ab xalifaam mooy sëriñ alin jaañ ñaareelu doomu soxna isa jóob bi ak sëriñ moor kumba bànna jaañ bi di soxna busa jaañ bi matee dem kër nag daaru nayim lañ ko yóbbu woon ci kër moor jóopa mook sëriñ moor jóob am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee soxna Loota Diop Serigne Moustapha Diop Serigne Modou Diop ak Serigne Mbacke Diop ñetteelu doomu soxna Issa Diop bi ak Serigne Mor Kumba Banna Diagne bi di soxna Assou Diagne bi mu matee dem kër Serigne Mor Daara nag lañ ko jébbaloon ginnaaw sëriñ moor Daara nag lañ ko jébbal ku ñuy wax sëriñ Ousmane Diagne ci dëkk bu ñuy wax Pikine ci Ndakaaru nag lañ ko yóbbu woon moog Serigne Ousmane Diagne nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee soxna Mbay Diagne Serigne Diagne Serigne Mamma Diagne soxna Issa Diagne Serigne Abdou Diagne ak ñuy wax soxna Adja Diagne ñii nag ñooy jarbaati sëriñ Modou Diagne yi laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ Modou Diagne mi ñu wax leen waajuram wii nag moom mooy kan muy sëriñ Mor Kumba Banna Diagne mi ci jàmbaar yi toppoon ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul la ginnaaw bu mu toppee nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul Cheikh Ibrahima Diop Almashari yu la ko Seexul Xaadim booleeloon mu wéy nag topp nag ci ginnaaw Cheikh Ibrahima Diop Almashari yu ba am bis nag sëriñ Touba Seexul Xaadim nag woolu ko doon ko laaj nag kan laa la booleeloon itim nag ci frais yi ko xamal ne daal Ibrahima Diop almashari yu nga ma boole loon seexul xaddim nag di ko xamal ne bis na tey nag boole waat naa la nag ci sama bopp mu wéy nag topp nag ci ginnaaw seexul xaddim ba ni ko seexul xaddim gërëmee bi ko seexul xaddim gërëmee nag la dem nag gosaas ci sëriñ Mouhamadou Diaw paxa foofu itam nag la nekk ba xëy nag war a moom njaaña mu jóge fa nag dem moomi njaaña njaañ googu nag la génnee àdduna njaañ googu itam nag lañ ko denc ci atum 1945 doomu sëriñ Mor Kumba Banna Jaañ bii nag bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ Mor Kumba Banda Jaañ mi moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk boobu nag di njaañ ginnaaw bi nag lañ ko yóbbu ci dëkk bu ñuy wax ngay saa yoro jox ko fa ku ñuy wax sëriñ Yankooba Gay mu wéel nag am njàngam fala la itim nag lii di xam-xam ginnaaw bi nag la delsiwaat nag ci loxoy waajuram ci dëkk bi nag di njaañ njaga waajuram nag mi ngi ko doon xamal ne soo desee daal ci dëkk bii di wéyal nag xasaayiti sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul yi lépp loo bëgg nag cim njàng itam nag danga ko am ginnaaw bu mu wéyelee ndigalul waajuram woow itam la ko waajuram itam nag jox lii du chef de dëkk boobu nag di njaañu njaga Touba mu wéy nag nekk nag ci loxoy waajuróom ba ci atum 1945 waajuróom nag génn àdduna ñu denc ko nag ci dëkk boobu nag di Njaañ ci atum 1946 nag la jóge Njaañ ñëw nag Daaru Nayim fekk si woon fi nag magam ju ñuy wax sëriñ Cheikh jaañ ak nijaayam ju ñuy wax sëriñ ma sàmba Massamba Aminata Diop ginnaaw bu mu defee nag 46 47 nag ci dëkk boobu nag di Daaru Nayim ci atum 1947 la bàyyi ko Daaru Nayim dem nag ci dëkk bu soriwul dara nag Daaru Nayim ñu gën koo xam ci aajeen fekki woon fa nag ay taalibeem nag yu fa nekkoon muy ku ñuy wax sëriñ Mandiaye Athia ak sëriñ Ibrahima Athia fa la nekk nag ba ci atum 1974 sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke woolu ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba doon am nag lu mu ko doon liggéeyloo ci xasiday xaadim rasuuli laataa muy ñëw Touba sax ci atum 1974 ci dëkk boobu nag di Aajeen sëriñ Modou Diagne def na fa itam nag lu takkoo takkoo takku ginnaaw bu mu ñëwee Aajeen ci atum 1947 taxawaloon na fa nag daaray alxuraan ak lii nag di daaray tarbiya di yar itam nag waa tundu Aajeen woowu coopérative dëkk ba itim nag yoroon na ko di jënd ak jaay nag ci wàllu gerte am na at moo xam ne nii ginnaaw bu ko nguur gi jëndloo gerte nag ba noppi bu nguur gi ñëwee nag di roñ gerte ga la nga xam ne nii daal sëriñ du jaañ nag dese woon na ko ci wàllu gerte moog li ko nguur gi doon jëndloo nag ñoo tolloo ginnaaw bu nguur gi ñëwee nag ba sant ko gërëm ko ci ñàkk pert googu nga xam ne nii nag def na ko moom sëriñ Modou Diagne dañoo fabaatoon nag gerte ga delloo ko ko sëriñ Modou Diagne itim nag daa fabaatoon gerte ga segal lu ko jaayaat daal la nga jaayoon ca koppe ba mu delloowaat la lu ni toll noonu nag ci xaalis waa dëkk boobu itam nag di aajeen itam santoon nañ ko gërëm ko mu wéy nag des nag ci aajeen ba ci atum 1967 mu am nag yéene taxawal nag xasida yi ngir bindaat leen bépp xasida goo xam ne nii nag amu ko mu wëri nag mag mu ko am ngir dajale nag xasiday xaadim rasuul yi ginnaaw bu mu demee njaareem nag waxtaan ceeg xaritam sëriñ Mor Mbay Cissé sëriñ Mor Mbay Cissé itam nag na Diop Dagana ngir wax ko itim nag mébét bi mu am itim ci dajale nag xasida yi sëriñ Mouhamadou Diop Dagana itim nag rafetlu na ko ñaanal ko doon ko xamal ne ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim waxoon nañu ne xasida yi daal la bëgg nañu dajale ko ba tàmbali woon nañ koo dajale sax ci nekkinam waaye néeg ba ñu dencoon xasida yi dafa tàkk sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag doon ñu wax ne xasida yi daal ki ko war a dajale bis dana ñëw nag mu dajale ko sëriñ Mouhamadou Diop Dagana joxoon na ko itim nag ab diiwaanu xuraaniya diiwaanu xuraaniya boobu nag sëriñ Modou Diagne itim nag aajeen ngir ñu bindaat ko mu jóge waan nag njaareem ñëw nag aajeen fas yéene eggale nag yéene boobu mu am nag ci dajale xasida yi ci atu 1967 ba ci atu mu dem jël nag ay bindkat fépp foo xam ne daal yaakaar na itam nag xasida maa nga fa mu solu dàllam nag dem nag wuti xasida ga ñëw itam nag fas yéene koo bind nag ci dëkk boobu nag di aajeen ci mbooloo mim indi woon aajeen nag ngir ñuy bind xasida yi ñu mën cee sëriñ Saaliw Ka di doomu Cheikh Moussa Ka dëkk bi nag di aajeen ngir ñu bindaat nag xasiday seexul xadiim yi ginnaaw buñ ko bindee nag ba noppi la woolu ku ñuy wax sëriñ Abdoulaye kan ngir mu bindaat lépp nag ci benn diiwaan diiwaan boobu nag la yit sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ci atum 1969 keroog bi muy indil diiwaan bi sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad ci dëkk bu sell bi nag di Touba ku ñuy wax Baye Modou Gaye nekkoon nag ci daaray kaamilu njaareem ji moo ko gunge woon ngir mu indi xasida yi nag ci sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke keroog bi ñu ñëwee tuuba nag ba seet si sëriñ Touba Cheikh Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñu ngi fekk nag Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ci kër gi mu dëkkoon nag ci Touba ci 1969 muy kër Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke gi bëkk néeg bu ñuy wax goote jeng booba nag moo nekk bëkk néegu Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ginnaaw bu ñu yëgloo ba goote jeng yëgal Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad nbake di ko xam ne am na ñu fi ñëw nag di la seet si Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke itam nag recevoir oon na leen ginnaaw buñ ko wanee xasida yi ba noppi nag te mbind maag rafetaay baag yéene ju ñu am Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke itam nag ñaanal na ko Modou Diagne bis bi mu indi woon xasida yi nag ci loxoy Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi ngi dëppoo woon ak ajjuma ñaari fani korite caatu 1389 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 12 décembre 1969 Serigne Ahad Mbacke nag ñaanalaat ko mu delluwaat nag aajeen wéel nag ab liggéeyam ba ci atum 1974 Serigne Touba Cheikh Ahad Mbacke woolu ko nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba di ko xamal ne xasida yooyu nga amoon yéeney bind ko am naa nag machine nag bu ñëw nag Touba di ma saytul nag lépp loo xam ne ni daal machine bi muul na ko ba noppi nga dajaleel ma xasida yi xasida gu ne daal nekk nag fa mu war a nekk mu jóge nag aajéen nag ci atum 1974 Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dogal ko suuf nag ci lu tolloog nag fukki pàkk ak juróom ci boori 30 Serigne Cheikh Bombali bi boole koog itam nag féetale ko itam nag ci kër boppam ñuy def nag lépp loo xam ne nii machine bi muul na ko Serigne Modou Diagne nag dajale ko Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xasida yooyu nag ci kër boppam itam nag la ko ubbil baneen néeka ku ñuy wax El Hadji Serigne nekkoon itam nag ci ndakaaru moo doon defaral Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke armoire yi nga xam ne nii nag ci la ñuy denc xasida yi ba ci atum 1975 Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bind lettre nag Serigne Modou Diagne di ko xamal ne am naa yéeney taxawal Serigne Touba Cheikhul Khadim ak kër goo xam ne nii lépp luy mbindam ak alxuraanul karim ak lépp itam nag luy jeexantalu mag ñi ñu di ko fa denc te moom nag am na yéeney ànd ceeg Serigne Modou Diagne lettre bi. yow sëriñ Mouhamadou Diagne asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu nuyu naa la lu bari sant naa la gërëm naa la ci sa pas-pas ci sëriñ bi nu amul lu dul moom tey ak ëllëg di yëgal ne dafa am liggéey bu ma nisaral defal borom Touba te dogg ci def ko te wàllu koo yëgal war koo yëgal képp ku ko yaakaar loola moo di kenn umpule wul ne sëriñ bi alxuraan moo doonoon liggéeyam bi ko gënoon a soxal gënoon koo itteel mu nekkoon ca nekk am ak sàkku ngërëmam ak sàkkul ko képp ku ma àndal léegi nag téere yegg na foofu kër gaa ngi bëgg xat ci moom ma bëgg ko liggéeyal bërëb bu boppam bu yaa bu rëy bu rafet yelloo moom ci kaw loolu sàkkal naa ko daaray boppam fi penku jumaa ji defarlu naa palang bi ba teg ko ci loxoy architecte ba jox na ko entrepreneur bu nu doy ba waxante nanu ci juróom fukki million ba juboo nanu ci mu daldi tàmbali liggéey sartu mu nekk liggéey bu garanti te bokk ak jumaa ji ab atte ci gépp fànn ak li ma nisate dogu ci tàmbali ko ci fan yi incha Seexul Xadiim ten war a bokk sos ci liggéey bi li yun fiq soo saati min saati wa a xudra alayhi risqo fan yun fiq bi ma aataahu laahu laa yukallifu laahu nafsan ilaa ma aataaha sayaj'alu laahu ba'dahu yusran sadaqa laahu al-aziim wasalaamu aleykum kullukum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu wasalaamu aleynaa wa alaa ibaadillaahi saalihiina wasalaam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci Touba lettre boobu nag la bindoon Serigne Modou Diagne ginnaaw bu daaray kaamil eggee nag la ko Serigne Touba Diagne mii moo koy placé nag ci xasida gu ne nag fu mu war a dem moo wéyal nag poste boobu nag ba ci atu 1981 fonctionnaire bañ fa njëkk a indi nag di Alioune Ndao ñu indi ko fa nag mu yor nag lépp nag lu aju nag ci wàllu bibliothèque bi moom nag mu wéy nag yor nag lépp nag lu jëm nag ci wàllu xasida yi ci niñ koy say too ba ni mu génnee àdduna nag ci l'an 2000 Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké itam nag bindaatoon na ko baneen lettre soo delloo nag ci lettre bi Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag bindaatoon Serigne Ahad Mbacke ma ngay sant nag Serigne Modou Diagne di ko wax ne daal gërëm naa la lool bantu na nag ngërëm li lu tolloog ñetti yoon ca biir ba ma koy wax itam nag sant naa la nag ci sa taxawaay bu leer nag bi nga amee maa ngi lay xamal ne nag sak fay ci fi nga féete man amuma ko waaye wóor na ma ne Serigne Touba Seexul Xaddiim ak buur bi tabaaraka wa taala nag danañ la fay ba mu wóor ñëpp nag ne fay nañ la lu wér la itam nag ci man te dëggu man nag mëna lu ma la dara waaye maa ngi lay xamal ne daal sab yool wér na yàlla dana la fay fii nag ci àdduna ak ëllëg yow ma xiyaam nag gañu jëm lettre bii nag la sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bindaatoon nag sëriñ du Diagne ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru rajab bis bi itam nag la ak njabootam jàpp di ci fàttaliku nag sëriñ Modou Diagne ci lettre bii ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bindoon ci sant nag gum koy sant ñu teewlu lettre bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. wa baadu yow sëriñ Mouhamadou Diagne maa ngi lay nuyu lu bari lool di la gërëm lool lool lool ci sa jëf ak sa taxawaay te leer ma di la xamal ne sa pay sëkk amuma ko waaye nag wóor na ma ne yàlla ak seexul xadim danañu la fay ba mu wóor ñëpp ne waatinaaw ajroo fi dunya wenoo fi laxat la mina saalihiina lu wér la te dëggu man nag mën a lu ma la dara lu dul xamal la ne la fa ajruka sab yool àlallahi war na yàlla waala seexul xadim ak seexul xadim xunaa fii waxanaa ak fa nu jëm wasalaamu aleykum kulukum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu awalan wa axiran kataboo Abdoul Ahad Mbacke bindaatoon na beneen ni mu baaxoo nag di nuyoo moom sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi ngi koy xamal ne ndaw loolu nag di ñëw man nag maa ko yónni ci yow juróom-ñaari kaamil yu sëriñ jëmm siise nag laa bëgg nga jox ko nag kooku ma yónni bi muy tëj lettre bi nag mi ngi koy xamal ne yow sëriñ Modou Diagne nag nuyu naa la sant naa lool lool maa ngi lay seedeel nag ngërëmul sëriñ Tuubaa nag ci yow ñu teelu nag ñetteelu lettre nag bu sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad bindoon sëriñ Modou Diagne di sàkku ci moom nag lu tollu juróom-ñaari kaamil yu sëriñ jëmm siise mu jébbal ko nag ndaw li mu yónni ñu teewlu ko asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu yow sëriñ Mamadou Diagne maa ngi lay nuyu lu bari lool gërëm naa la lool maa yónni ndaw lii ngir nga wutal ma juróom-ñaaru kaamil sëriñ jëmb dama ko soxla woo nuyu naa la maa ngi lay seedeel ngërëmul seexul xadim ci yow asalaam bi yadi Cheikh Abdoulaye mu wéy nag ànd ak sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nekk itam nag ci daaray kaamil ba nu sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke génnee àdduna ci atum 1989 sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ñëw toog nag toogaayu sëriñ Touba Khadim Rasoul wéel itam ndigal li sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke joxoon sëriñ Modou Diagne mu wéy nekk itam nag ci ginnaaw sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ba ci atum 19 90 sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadre Mbacke génn tim nag àdduna sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ñëw nag toog toogaayu sëriñ Touba Khadim Rasoul bi sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke nag toogee xalifa dafa wéel nag liggéey bi ci sëriñ Modou Diagne ci la wooloo nag sëriñ du Diagne di ko xamal ne damaa bëgg nag nga dajaleel ma xasida yi nga xam ne nii ku baax ki sëriñ Touba Khadim Rasoul nag bindoon na ko laataa nag muy dem ci géej gi ak xasida yi nga xam ne nii nag moom la bindoon nag bi mu nekkee ci biir géej gi ak xasida yi nga xam ne nii nag bi mu ñibbisee ci géej gi Touba nag moom la bind ci la sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag jël nag am mbind moo xam ne nii nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool nag moo ko bindoon di wax ne bu sañoon daal nag lenn itim nag la bindoon jàng xasida yooyu nag méngoo wut ak nag fii jamono toll ñaareelu pàccu xasida yi muy nag bi mu nekkee nag ci biir tukki bi yooyu itim nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool lu ci takkoo takku nag ci xasida yooyu bi mu koy bind ci pexe yi nga xam ne nii nag tubaab bi nag mi ngi ko doon doon def ci moom seexul xaddiim itim nag ngir mucc itim nag ca pexe yooyu xasida yu bare bare bare bari na su ko nit ñi seetloo ci wàllu googu itim nag la ko jëmale sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke nag mi ngi doon xamal sëriñ Moodu Jaañ di ko wax ne ñaar ñu doon xeex nag te xeex ba jeexa keneen ñëw nag di fàttali xeex ba dafa mel na daal ay wow ba nëgëni nag bëggugul mu jeexa te képp kuy jàng xasida yooyu nag dafa mel na nag ay wow na nga bëgg nag mu nekk fi nag ba nëgëni te loolu itim nag taxoon na ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sàkkootul woon nag nit ñi itim nag ñu jàng xasida jëfoon nag ci biir géej gi digganteem ak tubaab bi la woon wala digganteem ak boroomam ci ñaan nag yu mu ko doon ñaan ci pexe yi nga xam ne ni nag tubaab bi mu ngi ko doon tër moom itam nag mu fexe itam nag suñu boroom musal ko nag ci pexem noon yi histoire ba jeex na soo wéyee nag di fàttali histoire ba dafa mel ne yow bëggoo ay wi jeex ñetteelu pàcc bi nag mooy ginnaaw bu mu jógee ci tukki bi ba ñëw njaareem ba ni mu ñëwee tuubaa nag xasida yooyu nag yu ci baree baree bari nag sëriñ tuubaa seexul xaddim borom jox ko ko ak nag ay ngëneel nag yu ko suñ borom defal yu ci bare bari daal ci xasida yooyu nag moom la cay wax mu ne xasida yooyu nag mënees na koo jàng loolu itam nag la doon liggéeyloo sëriñ du Jaañ ngir mu sépareel ko xasida yi boole kook nag foofu mbindum ku baax ci sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul nag jébbal ko ko ñu teewlu nag mbind mi sëriñ Tubaa Cheikh Saalihu Mbàkke jébbaloon sëriñ du Jaañ ci keroog nag bi mu koy liggéeyloo ngir mu sépareel ko nag ñetti xasida yi wala ñetti mbindi yi bismillaahi rahmaani rahiim tahlimun li alama kula man taalaqa biha annani tawaalifa takunu fiha manafiha almuslimina wal muslimaati fi dunya wal axirati wa anna jamia ma katabtu fi xaybati lbahriya loolu xidmatan li rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam wa baraka wa shikru wa jihaad la xayru wa lisalika manahtu min naqli wa satartuhu wa amma ma qablaha min almakatibi fa lam yuqbal min shay'un wa man araada nag an yantafiya fi dunya wal axirati falyajtahid fi ma katab fi baqiyati muksi fa tilka al makatib faaxat xayrul quraan wal hadis xatxan lam takun fi xayriha min tawalif lettre boobu nag la ko sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke jébbaloon ngir mu dajaleel ko nag xasida yi ginnaaw bu mu dajalee xasida yi nag ba noppi it ko sëriñ Tuubaa Cheikh mbakke Mbacke ci diiwaanu xuraaniya boobu nag mu tolloon ci juróom-ñaari diiwaanu forxaaniya sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke nag daa signé waat nag ci diiwaan ba ngir wane ne moo ko liggéeylu ñu teewlu nag signature sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke waaxaan li am na wa mu wéy nag ànd ak Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ci liggéey boobu ko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke dénkoon Serigne Abdoul Ahad Mbacke dénkoon ko ko Cheikh Abdou Khadir Mbacke dénkoon ko ko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nag dolli loon na ko ci résidence Cheikhoul Khadim gi Serigne Modou Diagne tim nag yor ko Serigne Modou Diagne nag moo ko yor ba ci atum 1999 mu boole koog nag daaray kaamil daaray kaamil boobu nag bi ko yoree ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke am na nag ak jiix jaaxa nag gu ci nit doon werante nag moo ko Aliou Ndaw kan moo ci jiite nag daaray kaamil ginnaaw bu ci sëriñ Touba Cheikh Salihu jotee mi ngi koy xamal ne daal Ndaw fonctionnaire la état bi nag la fi toogal waaye yow yaa ñu fi toogal ñun waa kër Xaadim Rasuul la ci ndigal loolu ko sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke dénkoon ci la sax nag ba ni mu génnee àdduna ci l'an 2000 la mu nekki nag ku njabootuk sëriñ Touba Cheikhul Xaadim gi fonk moom sëriñ Modou Diagne bari na itam nag ci njabootuk ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Xaadim itam nag ñu mu tudde doomam ak soxna yi nga xam ne ni nag ñoom la dëkkoo woon ca biir soxna yam dëkkoo woon yoon nag ñu mën cee ràññee soxna Mbaaco Gay di soxna nag jum njëkk a dëkkool njaboot gii nag la am ak soxna Mbaaco Gay ñu mën cee ràññee soxna Anta Jaaña soxna Xadi Jaaña soxna Jóob Jaaña soxna Jatu Jaaña soxna Faatija Jaañ ak Sëriñ Basiiru Jaaña baneen soxna nag bu mu dëkkoo woon di soxna Njóoba Jeng njaboot gi mu am ak soxna Njóoba Jeng ñu mën cee ràññee Sëriñ Cheikh Jaañ mi toog nag ab toogaayam jamono jii di kam fayee Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul soxna Màggat Jaaña Sëriñ Mortaala Jaaña moo def nag marché yëpp Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke bi soxna Mariama Mariama Jaaña soxna Assu Jaaña sëriñ Baara Jaaña soxna Kinne Jaaña ak Seydina Jaaña baneen soxna nag bu sëriñ Muudu Jaañ dëkkoo woon mooy soxna Aminata Mbàkke mook soxna Aminata Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Mustapha Jaaña soxna Busa Jaaña ak kam woon sëriñ Murtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul di sëriñ Muxtada Jaaña baneen soxna nag bu sëriñ Muudu Jaañ dëkkoo woon mooy soxna Aminata Jóob wala soxna Ami Jóob mook soxna Ami Jóob nag amuñu ak njaboota baneen soxna nag bu sëriñ Muudu Jaañ dëkkoo woon mooy soxna soxna faati ka soxna faati ka mi nag doomu sëriñ Moussa Ka la mook soxna faati ka nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee kam faye woon sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbàkke di sëriñ Jiili Jaaña kam faye woon Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke di sëriñ Fàllu Jaaña soxna Awa Jaaña ak kam faye woon sëriñ Moussa Ka di sëriñ Moussa Ka Jaaña beneen soxna nag bu sëriñ Muudu Jaañ dëkkoo woon mooy soxna Busa Jóob mook soxna Busa Jóob nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee soxna Ami Jaañ soxna Asu Jaaña ak sëriñ Abdul Ahad Jaaña di kam faye woon sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke baneen soxna nag bu sëriñ Muudu Jaañ dëkkoo woon mooy soxna bintu sëy mook soxna bintu sëy nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Xaadim Jaaña soxna maam Jaara Jaaña baneen soxna nag bu sëriñ Muudu Jaañ dëkkoo woon mooy soxna Seynabu Jeng mook soxna Seynabu Jeng itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Xaadim Jaañ maam Busa Jaaña soxna Musli Jaañ soxna May Jaañ maam Xari Jaaña ak kam faye woon sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke sëriñ Saaliwu Jaaña baneen soxna nag bu sëriñ Muudu Jaañ dëkkoo woon mooy soxna Musli Jeng mook soxna Musli Jeng itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ sohin bu jaañ ñu gën koo xam ci sëriñ aboo jaañ ak soxna mariama jaxate jaañ di kam faye waajuru sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot gi itam nag la ci am mu wéy nag des nag ci ndigal lu ko sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke bàyyeeloon cheikh abdou xaadir mbàkke itam nag loon ko ko sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke itam nag digal ko ko ci la sax nag nekk itam nag ci daaray kaamil lépp loo xam ne nii daal machine yi nag mool nañ ko ci biir xasida yooyu yi mool xasida nag mu dëkkal ko nag fa mu war a dëkk ci loolu itam nag la sax ba ni mu génnee àdduna ci l'an 2000 ginnaaw bu mu génnee àdduna nag ci l'an 2000 la sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke fab doomam jii nag ñuy wax sëriñ seex Diagne joxaat ko nag lépp loo xam ne nii daal waajuram nag yoroon na ko ci liggéeyal sëriñ Touba bi mi ngi génn àdduna nag ci atum l'an 2000 laataa muy génn àdduna ci atum l'an 2000 boobu ci atum 1999 lañ ko yóbbuwoon nag ci hôpital la daan tekk ci feebar nag bu ko tëraloon ci feebar boobu nag sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ay ndaw itam nag ngir ñu seet ko cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul ñëwal na boppam nag ba ci hôpital ba seet si nag sëriñ moodu jaañ lu takkoo takku itam nag ci sëti seexul xaadim yi itam seet si woon nañ sëriñ moodu jaañ ci hôpital boobu mu tëddoon nag di daantek ginnaaw bu mu jógee nag ci wéradi googu la ñëw nag wéyal nag ab liggéeyam ba ci l'an ab feebar nag tëral ko ci feebar boobu nag la mujj génn àdduna ci kërug boppam gi nekkoon tuubaa ci bisub àllarba juróom-ñeenti fan nag ci weer wi nag di gàddaay gi àllarba juróom-ñeenti fan nag ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ci atum 1421 ci gàddaay gi dëppoog muy mercredi 12 juillet l'an 2000 mercredi 12 juillet l'an 2000 sëriñ Abdul Akim Mbacke moom ma Cheikh Mamadul Bachir Mbacke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dale ci atum l'an 2000 ba nëga ni sëriñ Cheikh Diagne di këm faye sëriñ Touba Xaadim Rasuul moo ko wuutu sëriñ Modou Diagne nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tuddee nag ci weeru rajab bis bi itim nag la ak njabootam jàpp di ko ci fàttaliku nag ci Touba Daarul Xuddoos bis bi itim Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo ko ci bindoon nag ab lettre di ko ca sant ak ca gërëm sant ak gërëm googu nag mu ko defoon nag ci lettre boobu mu ko bindoon ci bésub ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru rajab moom itim nag la ak njabootam jàpp di ko ca fàttaliku ñuy ñaan ca doomu Serigne Mor Kumba Banda Jaañ ba yàlla nañu ko suñ borom fayal te yokkitim nag ay leeram xoonale ko kam doon liggéeyal di Serigne Touba Cheikh Abdoul borom saafara ci darajey daaray kaamil amiin daaray kaamil amiin daaray kaamil amiin